nee na fukkeel bi mooy nga toftali sunna yi nañ tegaloo ba noppi tam ñu dugg ca biir farata ya nañ ca war a duggee kon nga sàmmoonteeg mboolem sunna yi nekk ci njàpp tegaloo ni ñu war a tegaloo nga xam ne nga lax ni ko ni mu jiitoo sarax ni ko noonu nga ko jiitale ba noppi tam nag ñu duggee ci biir farata yi nañ ca war a duggee boole ji waaw loolu lépp ngëneel la alxaadiyata xasharati fukkeel ba ak benneel ay ñu karrira mooy mu baamu almaxzoola la ñu raxas talaasa ñetti yoon bi xilaafil mamsooxi ci wuuteeg la ñuy masaa wa wuute moom la ñuy masaa ar rasu mooy bopp ba wal udunaani ak ñaar noppi ña fa innahu naka moom laa yustahabu deful sopp takraaru mas yi baamu masaam nga fukkeel beeg benneel mooy lu ñu raxas lu ñu raxas nag mooy kanam ak ñaari loxo yi dañoo bëgg nga baamu leen ba ci ñetti yoon maanaam boo raxasee raxas bu njëkk moom te doyut bu ñaareel ba du mën a ñàkk waaye nag boo raxasee raxas bu njëkk mu doy te daj raxasu ñaareel ba ngëneel la bu fekkee bu ñaareel ba ca la dajee te mat itam raxasu ñetteel ba ngëneel lay doon waaye boo ci xam ne matul rek ba sës ci moom du mën a ñàkk loolu nag moo xam kanam la moo xam ñaari loxo yi la lu ñu masaa nag moom bëgguñu nga yokk ca dara bu dee bopp bi dañ laa digal rek dem dikk muy masaa bi dem muy farata wala dikk muy sunna bul ci yokk dara bu dee nopp itam benn yoon rek nga koy masaa ndax nopp yi jubluwul mu set bu jubluwul mu set ñu wax la nga raxas ko dañoo bëgg rek ak woyefal moo tax kon nopp yi benn rek nga koy masaa masaa gi nag moom nga yokk ko noonu moom ëpp lañ la waxoon moom dañ koo sib tambihun lii ak yeete la asiyaadatu dolli xala salaatati ci ñett xayru mashruxatin du lu ñu yoonal waxtu li fa wuuteef na xel tukrahu ndax def na ko sib aw tumnaaw wala def na ko tere xawlaani muy yaari wax mashhuraani yu di ñu siiwal nee na buñ la raxasloo kanam ñett mbaa masaa dem dikk dañ la ca wax rek yem ca waaye boo ko ëppalee rek jàdd nga yoon dañoo wute nag ci da nga ëppalee lañ la waxoon ndax daa araam am dañ koy sib rek yem ci am na yaari wax waaye nag bañ koy sib mbaa ñu koy araamal mooy bu fekkee ne da nga caa jublu ak jaamu yàlla ca yokk ba nga yokk raxas ga ñett mbaa yokk ba nga yokk masaaga ba weesu dem dikk waaye bu fekkee da nga caa jublu dindi ay salte yu desan ci cër ba rek kon moom dana dagan wala yustahabu deful sopp itaalatul xurrati guddal xurra waxiya moom nag asiyaadatu mooy dolli xalaamaa ca la nga xam ne wajaba war na xasluhu ak raxasam min wacc ci kanam nga wal yadayni ak yaari loxo ya maxal mirfaqayni ànd ak ñaari conce ya nee na li ñuy wax guddal xurra tàmbuwuñ ko mooy bañ lay wax kanam dañ laa wax fam tàmbalee ba fu yem bañ lay wax loxo yi ñu ne la boo koy raxas fii la tàmbalee fii la yem lenn lu ca nekk nag nga raxas ba weesu foofa ni ki booy raxas kanam nga ñëw bay ñëwaale ci raxasaale baat bi mbaa doq gi wala bañ lay raxas loxo yi nga topp ko wuti mbagg ma mel ne kuy jàngu loolu sopp ni ko bu dee ci yoonu Malik waa Malik ñoom dañoo taamu gannaaw bañ la ne kanam gi fii la tàmbalee fii la yem booy raxas bul weesu foofa di ci yokk leneen lu ca bokkut bi leneen loxo yi mi ngi tàmbalee ca ti baaraam yi ba ëmb conce yi tuuti ndax yemale kese dafa jafe ba tey bul weesu foofa waaye boo ko weesoo rek ñu sib ko wala masxur raqabati du caagéenu masa baat masa gi bopp bi lañ wax yem ci doq ga fa bopp ba yem waaye masaawaale baat bi soppuñu ko ba tey masaa nopp yi benn yoon rek lañ ko masaalu nga koy masaa ay yoon ni ki ñaar mbaa ñett ëpp naa def wala ba asa ayit bi masil axdaa yi ci fàmp cër ya topp cër ya bil min jili ci sarbet boo jàppee ba noppi nag mbaa nga sangu farata ba àggal nga jël lu mel ne musuwaar mbaa sarbet mbaa beneen sér bu set rek di ko fompe ndox mi la tooyoon loola wàññiwul dara faslun li ab dog la al istinjaaw tàncu waajibun aji war la tàncu waxi wolof la waaye mooy boo demee ci wana wa sobe sa génnoon nga raxase ko ndox te bañ koo dindee lu mel ne bant mbaa aw doj mbaa dara xanaa dindee ko ndox loolu boo ko defee moo tudd al istinjaaw ñu koy wax tàncu lu tax mu naa wax woo moom xaslu mawdihil xadasi mooy raxas béré bu toj ma bil maay ci ndox bu demee ci wana wa sobe su génn mat mu dindee ko ndox raxase ko ndox loolu moo tudd al istinjaawu tàncu wa istinjaa def na tàncu min kulli maa ci lépp loo xam ne yaxruju dana génn min al maxrajayni si ñaari génnukaay ya moo taa dañ mbir mu ñu baaxoo ci mu génne fa ci war na yi ndare aw ngelaw maanaam lépp lu génne ci buntu suuf bi wala ci buntu sawukaay bi te baaxoo faa génne moo xam saw la moo xam xayta la moo xam mas yi la moo xam wadd yi la moo xam mañ yi la rek bu génnee ñu war koo raxas ba mu set ndax loolu sobe la ba mu des nag gelawal gelawal moom su génnee mën na faa bañ a taqal dara moo tax waaw moom bu génnee ba noppi itam foofa tooy it waaye tooyaay bu amul solo waaw waaye nag bu xasee tooy tooy bu baax a baax nag ba tey faaw ñu war koo raxas doon dañ koy sopp sax moom waaye bu fekk ngelaw li daal moom génnewul tooyaay bu am solo mënees na ko bàyyi noonu wa sifatuhu meloom wax añ yebda am mooy mu jëkkee bi xas yedd yi ci raxas loxoom al yusra bay càmmooñ qabla mulaqaatiha ci njëkk ak taseem ak al azar sobe sa dañoo bëgg na loxob càmmooñ bi nga xam ne mooy bëgg a raxas sobe si balaa laal sobe si nga raxas ko xaat te fekk moom laalagul dara dara li mu jëriñ nag mooy bu laalee sobe si ba noppi du xeeñ loolu lay jëriñ ci nga raxas ko xaat te laalagul dara dara moom loxob càmmoñ boobu le su ma bi xas li maxalil bawli topp raxas bérébu saw ma su ma yen taq li topp dana toxu illaa maxalil xaayiti jëm ci bérébu xayta ba waaye subbu te muy sotti alma ndox ma xalaa yeddi ci loxoom xaasi la mbir muy aji raxas biha ak moom almaxal almaxal la béréb ba waaye sarxi te mu yolom lu xalilan tuuti wayu wayu jiidu te ñu rafetal alxarka ragg ga xataa yun xëye ba mu setal almaxal la béréb ba dañoo bëgg na mu njëkk raxas fi saw mi génne ndax ndegam ñaari sobe la te saw mi gën a woyof na njëkk raxas fi saw mi génne lu may nag day koo xam ne saa yu laalee buntu suufam rek faaw buntu saw ba génne am saw kooku moom sayo boobu njëkkee buntu suuf ba ndax kon bu njëkkee buntu saw bi itam faaw mu ñëwaat ci waaye bu fekkee loolu dalu ko moom kon dañoo bëgg mu njëkk raxas fi saw mi doon génne lu war raxas nag fa xayta yi doon génne bu jàllee fa xayta yi doon génne nag moom day sot ndox mi di bomb rek bu baax a baax te itam bàyyi bunt suuf ba mu wàcc ndax suñu borom dafa bind bunt suuf mu amee ay ras-ras su ko bàyyee mu banku mën naa am banku waale sobe waaye su ko bàyyee mu wàcc rek na ko yàlla bindee dana ko mën a raxas ba mu set su ko defee nag ba raxas rek ba mu set su ma yax si topp na raxas yeddufoo loxoom baax de gaalib ci gannaaw loolee bitraa bi ci suuf wana yi ëpp na ne moom loxoom bi nga xam ne moom lu raxasee sobe si dañoo bëgg bu raxasee ba noppi loxo boobu mu riwis ko ci suuf daa koy raxasaat da daa waxoon léegi ne loxo càmmoñ balaa laal sobe si da koy raxas xaat te laalugul sobe si bu fekkee defoon na loolu moom kon du xeeñ bu soobee yàlla kon du aajowoo bu mu raxasee ba noppi mu di ko ribasaat ci suuf mbaa mu cee def saabu waaye nag bu fekkee dafa jekkoon jekk ne daal jël loxo càmmoñ ba def ca sobe sa tutug koon raxas nag kon moom bu raxasee ba noppi sobe si na raxas loxoom boobu ak saabu mbaa suuf ndax xet ga bañ caa des wal istifraawul laab lu waajibul aj war la waxuma moom istifraaxu maa mooy sàkkoo jeexal lépp la nga xam ne fil maxrajay ni nekk na ci ñaari génnukaay yi minal asaaj ci sobe laab lu moom bu dee ci bunt suuf moom day bàyyi rek tey ba wër ko ni daal ci liñ jàpp daal dara génnatut mu daal di bàyyi daal di raxas bu dee bunt suuf moom noonu doy na ci waaye na tey na tey ba wër ko ni daal jàppatul dara na génn bu dee sawum jigéen tam noonu la day génn rek jeex bu jeexee dina yëg ne dara génnatut mu des nag sawum góor bu dee sawum góor nag moom mën naa mu génn ba noppi tag am lu des lu wàccut lay bëgg a wax wa sifatuhu meloom wa minal bawli ci saw ak yow ji xala mooy mu def zakarahu zakaraam bay na usu bu xay diggante ñaari baaraamam as sababati te mooy baaraamu sànnikaay ba wal ibhaami ak baaraamu day ba fa yu mirrahuma te mu leen di rombale min aslihi tàmbalee ci cosaanam la maanaam mooy fa mu saxe ila busratihi ba ci boppam ba wayanturahoo te mu koy fëgg yefam day def daalika loole talaasa marraat ñetti yoon bi xiifatin ànd ak woyof fi salti ca ratt ga wa natri ak fëgg ga bu dee sawum nguur tam yaakaar tag na bu fekkee jàpp na tag na day jàpp ca fa sawukaay ba saxee ratt ko ndànk ñëw ba ci bopp bi daal di fëgg bopp bi ko defee nag mu def ko ñetti yoon bu jàppee ne la dawoon tàggante ko na baax na yaakaar ne tàggante gu tam mu deel ko defaar ba tappal daal waaye itam nag na muy rattee sawukaay bi ak na mu koy fëgg lépp na nekk ndànk ndax bu xëree ci diineem ak bay julliwaale sow bi ba tax mu def ko bu baax a baax mën naa andi far am njokkale mooy saw mi baaxoo génn saa yu nekk te du ko mën a téye ndax loolu day ñëw mujj pàcc bi nga xam ne moo daa téye saw mi mën naa am du ko mën a téyeeti ndax noonee mu koy ñoddee boobu ak na mu koy def boobu ba boobaay mu daal sot ko am jokkale kon na koy def ndànk rek bu koy def te bu jàppee dara tawu fa it buñ ci defante noonu na bàyyi rek noonu waaye jibi dana war xas lu zakari raxas sàkkara kulli yi léppam di xoroo bi mas yi ngir génn mas yu mas yu xam nañ ko ci gannaaw bu fekkee ni góor gi day xalaat jote góor ak jigéen ci am xelam mbaa muy fowante jigéen ba ab sowukaayam jóg xëy na gannaaw ba ndox mu weex moo xam ne farut génn ca ndox moom moo tudd mas yu loo xam ne ne sobe la day aajowoo mu raxas ko te it day aajowoo mu raxas sawukaay fa mu saxee ba mu yem dañu ko digal rek xamul lu tax bu fekkoon ne ba mu génnee ci bunt ba képp la yem it te tee mu war a raxas sawukaay ba fa mu saxee ba mu yem ndax dañu ko digal rek xamul lu tax léegi mu ci deg ne wax yi mu jóobi niyati nekk ci waru yéene ba fii xas yi ci raxasam xawlaani ñaari wax ndax bu dee raxas sawukaay ba ngir mës yi ma génn dana aajowoo mu yéene ko am nga aajowoo mu yéene ko am na ñaari wax waaye daa mel ne gën a wóor mooy yéene gi daa mel ne yéene ga moo gën a wóor ndax ndegam àgg nañ ci ne dañ koy raxas tàmbalee ca saxukaay ba ba fa mu yem te bu taqul sax du tee ñu raxasaale foofa loola kon mel na ne yéene ji moo gën a wóor moom na dafa tudd tàncu muy al istinjaaw te waxut li ñuy wax al istijmaar al istijmaar dañ koy firi dawandiku waaye mooy ba mu demee ca wana wa mu dindee sobe sa leneen lu bokkut ak ndox mel ne bant wala doon ji suuf wala morso bu set loolu mënees na ko ci bu fekkee ne day xayta ba noppi ba xayta yi génnee ci bunt ba rek la yam tasaaroowut ba tey bu dee sawum góor tam yam ca buntu sawukaay ba rek ba tey mën na koo fopp rek bàyyi waaye nag bu dee dafa tasaaroo moo xam sawum góor ma moo xam xayta yaa wala bu dee sawum jigéen nee nañu faaw day tasaaroo yooyu moom nee nañu faaw dañ koy raxas lañ mën a fopp rek bàyyi mooy xayta bu génnee te yem ca bunt ba ak sawum góor waaye sawum jigéen faaw ñu raxas ko lu xës tasaaroo itam ba weesu bunt ba it muy xayta muy sawum góor faaw ñu raxas ko mën yi itam des ko war a raxas ba tey dereti mbërëg ak dereti wasin sobe la te des ko war a raxas mët yi itam des ko war a raxas te itam bu fekkee da ngay dindee sobe lu bokkut ak ndox la nga koy dindee faaw na nekk lu wow ndax bu nekkee lu tooy day tasaare sobe si te it na nekk lu laab dañuy bañ nga fekk loo xam ne sobe la mbaa sobe taq na ja nga di ko dindee sobe loolu ëpp naa def te it na mën a setal bu baax bu fekkee dafa nekk lu ratax lu ratax lu ratax lu ratax mën ko setal te it bu mu nekk lu lay gaañ mu ne loo xam ne daa ñaw boo ko foppee cër ba mu xotti yaram wa ëpp naa def bu mu nekk itam lu ñu ormaal ngir teraangaam wala ngir doon gum doon lu ñuy lekk lépp loo xam ne mbind la ami ay araf rek dañuy bañ ko ko dindee sobe ndax lu ami araf dañ koy fonk ormaal ko doon ci sax mbind mu mbindum jabar dong la mbaa muy téeréb yàlla boo xam ne ni ko yàlla jox mi yëxoot nasaraan dañ koo soppi ba doonu ci mbindum yàlla dëgg-dëgg maanaam nekko bi téeréb yàlla dëgg-dëgg yooyu yëpp ndegam mbind la rek mu ami araf dañu bëgg ko ormaal mbind mu bañ caa dindi sobe lépp lu ñuy lekk itam dañ ko moytu lu ñuy lekk dañ ko war a ormaal ndax lekk yàllaa ko xéwale doomu aadama wari su caa fopp sobe nga boole ca bu doone yëfi jaambur na moytu yëfi jaambur mu jël ko di ko fompe sobe nit ki mu deen rek miir bi rek li muy dindi ci sobe mu di ko taqal ci miirub jaambur ba lu mel noonu araam na
faslun beneen doomu ngoog aadaabu qadaa'il xaajati teggiini faj aajo arbaxata xashru fukk laa ñeent adaban ci teggiin dañ ko firee faj aajo waaye mooy dem wanag maanaam teggiin dem wanag daa xaw a bari mat na fukki teggiin ak ñeent at awalu bi ci jëkk dikrullaay mooy tudd yàlla xinda iraadati duxooli fa namm dugg ga xabla gusooli ci njëkk àgg ga ilaa mawdihin aza jëm ci bérébu sobe sa fa yaqul te ñu wax ne bismillahi maa ngi duggee ci tur yàlla allahumma yow buur bi indiya naka man aawudu dinaa musul bi ci yow minal xubsi ci saytaane yu góor yi wal xabaa'isi ak saytaane yu jigéen yi am nañ ca yokk wa min rijsin najis asheytaani rajim am nañu ci yokk loolu
tegin bi ñëkk ci booy dem wanag daal mooy bala ngaa dugg ci wanag wa na nga wax bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'isi am ci dolli ar-rijsi najis ash-shaytan rajim loolu daal wax ko bala ngaa dugg ci béréb ba ngay faja aajo wa yaqulu tamit wax baax na xuroo ci gannaaw génn ga minhu ci wana ci wana wa ne xufraanaka maa ngi sàkku sa njëgal alhamdu xeeti cant yëpp lillahi aji la ñeel yàlla allisi yàlla mi nga xam ne ashaba dindina xani ci man al aza sobe fi waxaa faani te mu jàmmal ma gannaaw boo génnee ci wana wa nag dañoo bëgg nga waxati lii sant yàlla mi nga xam ne moo la tàggale sobe si may la jàmm daal di wax xufraanaka alhamdulillahi alladi azhaba xanil aza waxaa faani walaay yësu dagam doxoolu xalaay dugg ak umbal wala dugg wa nag bi seen ànd ak dara fii loolu nekk na ca dikkur laay tudd turu yàlla taala kawe na kal xaata mi ni ki ak jaawa wa dirhami akub dërëm booy bëgg a dugg ci waa nag da ngay seet ba xam yor nga dara lu am turu yàlla am déet bu dee jaaro mbaa ab dërëm mbaa dara nga génne ko bàyyi fi bitti bañ koo dugalaale ci biir walaaye joo suudu dagan ak isin jaaw tàncoo bi seen ci dara fii si loolu nekk na ca dikkur laay turu yàlla taala kawe na maanaam boo dee raxas sobe sa muy dindi sobe sa du sañ a yoraale dara loo xam ne am na turu yàlla ni ki bu yàlla dogalee mu dugalaale jaaro ba te jaaro ba am turu yàlla mbaa turu yonante wi na moytu ba muy raxas sobe sa jaaro ba nekk ci loxoom mu koy raxas sobe sa fekk mu am turu yàlla mbaa turu yonante bi yi demee noonu ëpp naa def lépp loo am turu yàlla daal kenn du ko dindee sobe mbaa nga koy boole ci ba ngay dindi sobe ak faani ñaareel bi añ yuqaddima mooy mu jiital rijlahu tànkam ba al yusra bay càmmoñ fi doxool ca dugg ga wala yum naa mu jiital ndeyjoor ba fil xuróoji ci génn ga dañoo taam booy dugg ci wana wi da nga njëkk a dugal sa tànku càmmooñ mujj dugal sa bam ndeyjoor booy génn nag nga njëkk a génne bam ndeyjoor bi mujj génne ba càmmooñ ba loolu nag moom bépp béréb boo xam ne béréb bu sobe rek la dañoo taamu sa càmmooñ jiitu ca dugg ga sa ndeyjoor jiitu ca génn ga bu dee béréb bu ñuy teral mel na jàkk nag moom ñu taamu sa ndeyjoor jiitu ca dugg ga booy génn sa càmmooñ jiitu ca génn ga ak taali su ñetteel gi ay yàq diye mooy mu faj xaajatahoo soxlaam wax wa te fekk na moom jaay su aji toog la dañoo taamu bu dem ba nag mu àgg suuf te bañ a taxaw bu dee xaytu sax moom taxaw gi dana doy waar waaye bu dee tur ndox itam li ci gën rek mooy àgg nga suuf ak rajo bu ñeenteel bi an yu diina mooy mu saxal a sitra sutura sa xataa yet noo ba mu jege min ardu ci suuf sa dañoo bëgg buy dem wa nag rawante na ci àll ba balaa dindi tubéyam mbaa balaa dindi asku mbaam bu dee jigéen na yuug ba jóge suuf door a wag kumba sa mbaa door a wag tubéy ja waaye nam taxawee rek noonu daal yëpp xaat yére yi loolu tàmmuñ ko alxaamis juróomeel bi ay yaatamida mooy mu sukkandiku xaalaa rijli yi ci tànkam ba ay isra bay càmmooñ dañoo bëgg bu ko see àgg suuf ba sobi si di génn mu ëpp doole ci wetu càmmooñam maanaam mu su mu sukkandiku tànku càmmooñ day tax rek sobi si mën a génn bu baax a baax loolu lay jariñ assaali su juróom benneel bi ila raabi xasara ba fukkeel beeg ñeenteel añ yu farrija mooy mu soreele bay na fax yi fay diggante yaari luppam waaye yee ji tani ba ak mu moytu almaw dixa béréb ba asul ba bay aji dëgër wala maa ak ndox ma at daa ima may aji sax wa an yuxatii ak mu muur rasahoo boppam wa an laa yetakallama ak mu bañ a wax illaa li muhimin dara ngir yittee aji yitteel muy yittee ka xaw fi ka xaw fi fawaat nafsi ni ki ragal faatu bakkan aw maalin wala alal waaye nga taq yi ak mu wattandiku arriha ngelaw la wal jibra ak pax ma nga xam ne gasu ko gasal ko boppam wal malaaxina ak moolukaay ya ak salaasu ya di yett wala ñoom nag mawaadixu julloo si naas yi mooy béréb bi toogam nit ña watturu xaatuhum ak seeni yoon wa an yastatira ak mu suturlu xan ayuni naas yi walis ba ci nit ñi wa an yabuxuda ak mu sori xan masaamihi walis seen nopp xan masaamihim itaakaan dem nekk na fi fabaay ci àll ba wa an laa yastaqbila ak mbañu jublu ak xiblata xibla wala yastadbirha tey du ko wan gannaaw isa kaana dem nekk na fi fabaay ci àll ba wala nekkul te amut fii ci moom saatirin jenn aju sudraal daa bëgg a boole nag di tàmbalee juróom-ñaar ba nga def ko ñeent ko bëgg a far boole rek ci gàttal kon jàppal ne bokk na ci teggin ya mu soree la diggante ñaari luppam ñaari lupp yi ba na jegee boo àggee suuf bay génne sobe si na yang diggante ñaari lupp ñu sore loolu teggin la nga boole ca moytu béréb bu dëgër ba noppi am sobe béréb bu dëgër ba noppi am sobe na ko moytu ndax bu àggee suuf sobe sam fekk mën na koo taq su taxawee sobe si génn ci moom tis ko kon nag na mooy bépp béréb boo xam dafa dëgër ba noppi am sobe boole ja de bu dee béréb boo xam dëgër na waaye amul sobe moom mën naa àgg suuf ndànk mën naa am kon dana mën a moytu sobe sax sobe si bokk na ci teggi nii moytu ndox mu ne dégg mu ne ab dégg rek noonu mu dugg ci biir di ca faj aajo loolu ëpp naa def ndax ndox mu ne dégg moom dawut lu ko sobeel day yomb xam nga géej mbaa dex moom dañuy daw dugg ci biir faj ca aajo wàññiwul dara ndax moom du ca feeñ waaye nag ndox mu ne dégg mel ne ab déeg mbaa ab deq na ko ca moytoo def boo koy teggin yi mu muur boppam ndax rusu yàlla ak malaaka yi boo koy di teggin ya bu xasee bay faj aajo bu mu wax jenn wax ci kàddoom maanaam bu wax dara ci làmmiñam lu may lu mën da ñàkk mel ne bu séenee bakkan buy bëgg a daanu ci lu koy rey mel nit ki bëgg a daanu ci gumbu gumbu gu bëgg a daanu ci kàmb mbaa alal ji bëgg a yàqu nit ki néew yu bëgg a lakk mbaa alal ji bëgg a lakk kon na wax moom ndax loolu yitteel waaye bu dul loolu na teew rek làmmiñam bañ a wax dara dara bokk na ca teggin ya na moytoo soflu ngelaw li dañu bañ bu sofloo ngelaw li ngelaw li wëlbët sobe si delloo ko ci moom na bañ a jàkkaarlu ngelaw ndax kon ngelaw day ëf sobe si mu ñëw ci moom na moytu pax moo xam ne gasu ko pax moo xam ne moo ko gasal boppam moom baax na waaye pax moo xam ne gasu ko mën na am bu tur ndox mi jàll ca biir pax ma amu ca nekkoon ci biir mën na jiit mbaa jaan daal di gaaw génn bu koy séen moom mën naa daal tiit bu jógee sobe si taq ko loolu moo tax na moytu pax moo xam ne gasalu ko boppam na moytu béréb yi nga xam ne li cëpp ku ko def bu nit ñëwee muulu la te bokk na ca fa nit ñi baaxoo toog bu dee garab bu dee jamonoy tàngaay garab yi nit ñi toog na ko moytu bu dee béréb boo xam ne bu dee jamonoy seet nit ñi fee toog dafa jaaru ci jant bi loolu ba tey béréb bu toog toog toog nit ñi la wala fu nit ñi aw di fa muy seen yoon waaw fu nit ñi aw muy seen yoon baa fa ñu roote na moytu rootukaay yi na moytu yoon yi nit ñi aw na moytu teewkaayu nit ñi ci garab ya mbaa bokk ci pénc bi fa nga xam ne bu dee jamonoy set dañ fay toog bu dee jamonoy set dañ fay toog dafa mel ne kuy jaaroo cant bi yooyu yëpp na ko moytu ndax yooyu li cëpp koo fa def rek ku dikk moolu la daal lay moolu bokk na ca na fexe ba làqu nit ñi nit ki bu dee ci àll ba mu fexe ba làqoo garab mbaa leneen bu dee ci kër gi itam li cëpp dana mën a fexe ba wut lu mel ne ab umbal bokk na ca teggin ya mu sori nit ñi ndegam ci àll ba la xam mën naa taamu na sori nit ñi ba bu dee faj aajo lay génn ci moom bu amee kàddu itam kàddu kenn du ko dégg bu dee kër gi moom ci fu dus ba nekk rek la mën a dem foo xam nekk la mën a dem waaye bu dee ci àll ba mën naa taamul boppam foo xam day sori noppi nit ñi wax na ci teggin yi bu dee dem wanag tamuy ci àll ba bul jublu xibla bu bul wan gannaaw xibla nit ki bu dee suñu suñu xibla benn mi penku mbaa mu xaw a càmmoñ tuuti rek loolu mooy sunu xibla léegi nag bu dee ci àll ba te dara doxul digganteem ak xibla maanaam diggan ak ndànd fay fay rek la kon bu mu jublu xibla mooy fa muy julli jëm bu mu ko woon gannaaw na jublu fay rek fu bokk te foofa bu fekkee ne nag léegi am na lu ko aar am na lu ko làq nag ndax su boobaa sañ naa jublu xibla wala déet moom la bëgg a wax fayn kaana dem nekk na fii ci moom sa kirun aji suutural fa fii man xii nekk na ci tereem nga xawlaa ni ñaari wax maanaam su fekkee ci àll ba fa muy deme wanag am na lu dox digganteem ak xibla ndax kon sañ naa wan xibla gannaaw mbaa mu jàkkaarloog moom wala déet am na yaari wax da caa teg nag almuxtaaru jañu tànn min xumaa ci ñoom ñaar almanhu mooy tere ga maanaam tere ga moo gën a wóor loolu la wax nag waaye war raajihu aljawaazu maanaam la gën a wóor mooy bu dee ci àll ba moom bu xasee am lu dox digganteem ak xibla jublu nga xibla mbaa wan nga gannaaw xibla wàññiwul dara dagan na loolaa gën a wóor li mu wax ne almuxtaaru minhuma almanhu wa am naa fi am loxo ndaal ak defam fil man sili ci kër ga fay jur suna dagan mutlaxan ak nu man di demee ax ni damaa jublu sawa ma yemoo la kaana moo xam ne kan xonaak foofee sa kirun aji suusaal am laa wala déet kaana moo xam ne kan xonaak foofee mashaqatun ak coono am laa wala déet li nga wax léegi mooy bu dee ci àll ba mu ne bu dee ci kër gi nag moom te kenn du ko séen kon bu ko neexee jublu xibla bu ko neexee wan gannaaw xibla bu ko neexee jublu feneen doonte sax buñ ko ne woon bu jublu xibla bu ko wan gannaaw du ci am benn jafe-jafe nit nga xam ne ci misaal nañu defaree wanawa bu toogee wanawa day jëm bawal mbaa gànnaar bu dee ci nun nga xam ne kon jëmul xibla yooyu jamono moom bu toppoon la ko neex jëm xibla mbaam wan gannaaw xibla yi du wàññi dara waaye nag fekk rek mu nekk ci kër ga ba noppi itam di béréb boo xam ne kenn du ko séen ca foofee mu nekk faslun nawaqidul wudoo yooyu firi njàpp arbaxatun yent lañu nee na yi yàq njàpp ñeent la ak awalu bu njëkk bi ar riddatu mooy murtat waxiya moom nag ar riddatu kufur muslimi mooy weddik ab julit ab julit bu fekkee jàppoon na gannaaw ba nag mu wax mbaa mu def lu ko génne ci lislaam bañ jàppe ko ne murtat na gannaaw buñ ko waaree ba mu nangoo tuub ñëwaat ci lislaam ne du tee njàpp moom jàppoon yàqu na faaw rek na jàppaat ak taani ñaareel bi ashakku mooy sikki sàkk fi wujjooti taxaarati ci amuk laab ga kooku nag moo xaw day waar maanaam day sikki sàkk ba xam ca dëgg-dëgg ndax jàppoon naam jàpput kooku moom dañ ci dogu ne ko jàppoo rek mu jàppiwaat kooku lu ñu diisal la moom maanaam day sikki sàkk ba xam jàppoon naam jàpput sax xamul def na comme defu ko ñu jàpp li gën a wóor rek mooy jàpp ne ko demal jàppee aw fil xadasi wala ci am toj mën naa am muy sikki sàkk ci ja wóor na ko ne jàppoon na waaye léegi xamul ndax njàpp ma toj na wala tojut kooku moom bu fekkee xelam baax na dañuy jàpp ne kon njàpp mi toj na mu dem jàppiwaat bu fekkee xelam baaxut day jeexi jaax na moom daañu ko wax léegi aw fi saadix wala ci aji jiitu yow min xumaaj ñoom ñaar maanaam wóor na ko ne moom jàppoon na waaye wóor na ko itam defal na lu toj njàpp te xamuñu yaar lu ci jiitu li wóor na ko ne demoon na ci wanawa wóor na ko ne jàppoon waaye xamul nag léegi ba xam ndax njàpp mi moo jiit dem ci wanawa wala dem ci wanawa moo jiit njàpp mi nga xam ne fekkoon ne njàpp mi jiit dem ci wanawa kon dana ko wóor ne wóoratum njàpp bu fekkoon dem ci wanawaa jiitu njàpp mujj mu wóor ko ne yor na am njàpp waaye nag xamu ci lu ko wóor kon dañ njàpp lu gën a wóor ne njàpp ma moo jiitu dem ci wanawa mujj ko ba léegi amatum njàpp na wutim njàpp maalam yestan ki wala fekk taqawut ak moom ay chekku sikki sàkka loolu day dellu ci lu bokkut ak bu jëkk bi bu jëkk moom nee naa la léegi dañ ko dañ ko diisal lool mooy dama sikki sàkk ba xam jàpp naam jàpput kooku moom dafa diis dañu jàpp ne jàpp la moom dogu ci ak doon ci sa xelam baaxut it dañuy dañuy jax-jax ci loolu it moom na jàppi rek moom ndax loolu dafa diis li ci topp na nga xam ne wóor na ko ne jàppoon na li mu xamut koy léegi mooy ba xam toj na am tojut wala wóor na ko ne jàppoon na wóor na ko ne defoon lu toj njàpp xamatu lu ci jiitu kooku moom fekkee xelam baaxut bis bu ne mu dal ko say mu bañ koo geesu kon bu mu jàppiwaat na doyloo rek njàpp moomee ndax di ci moom lu indi yéexi jaaxa dañ ko daal di moytu ndax moom day yàq diine bu méttee méttee ak saalisu ñetteel bi alxadasu mooy am toj wax woo moom maa mooy la nga xam ne xaraja génn na min ahadi sab yi lay ni bàyyi ko ci benn ci yaari bunt ya yaar yoon lay firi waaye mooy ñaari bunt ya xalaawa ci sixati ci anamuk wér wal intiyaadi akuk baaxoo ñetteel bi ci nga xam ne mooy toj njàpp mooy jënni am toj li yàq njàpp am toj ca la bokk toj na boo ko déggee mooy lu génn ci buntu suuf bi mbaa ci buntu saw ma te baaxoo faa génne te ànd ko wér ca ba muy génn boole ci dafa baaxoo génne nag mooy saw ak xayta ak gelawal ak masiyu ak wadd yu ak maniyu yooyu ñoo fa baaxoo génne buñ génnee te ànd ko wér na nga xam du njokkale maanaam wéra di wéralu ko kon daañu toj njàpp ma waaye bu fekkee la génne ci buntu suuf mbaa ci buntu saw ma daw fu baaxoo génne mel ne ay sax moo ci génne wala ay doj wala deret loolu baaxoo faa génne loolu kon du toj njàpp bu fekkee la fa génne moo fa baaxoo génne ni ki day saw mbaa xayta mbaa gelawal mbaa yooyu waaye wéradi la daa wérat ni muy génn normalu te saa yu nekk noonu la koy def mbaa lépp jamono noonu la koy def ba tey kooku du toj njàpp ma xanaa daañu sopp rek bu fekkee ndox yomb na te waxtu wa seddul deful dara julli gu ne rek mu jàppal ko waaye mën nay doyloo bu ko neexee jàpp moom yoroon rek arraajoxu ñeenteel bi al asbaab mooy sabab ya yi nga xam ne ñu sabab toj nekk ñu sax jëmi am toj waaye dañ koy sabab waxee ñoom nag salaasat ñett lañu al awalu bu njëkk bi lam si man mooy laal koo xam ne tuujadu dees dees na am al lëdatu bànneex bi lam si yi ci laalam nga fil aadati ci aada daf soo jot ni ki soxna wala amati ak jébéer in xasale ndem jublu woon na alladata bànneex wa waja daxaate mu am ko aw laa wala déet amu ko daa wax ne nag bokk na ci sabab am toj bi ne ñett la ba ci njëkk mooy góor gi wala jigéen ji gannaaw ba mu jàppee ba noppi mu laal moroom ma te jublu ci bànneex moo xam góor gi laal jigéen moo xam jigéen laal góor bu fekkee jëmmi laal ga bànneexu la ci jublu woon rek te kooku bu ko mosaa laal kat daayis na ci am bànneex ci aada mel ni soxnaam la mbaa jaaw bu jigéenam la mbaa ab jaaburu jigéen la ci moom mbaa bu dee jigéen jaa góor gam laal day jëkkëram mbaa muy ak jàmbur ca moom ku ci laal moroom ma rek te jublu ci laal ga bànneex rek njàpp ma toj na dégam jublu ga am na rek moom jublu ga bànneex am na am nga bànneex ak ñàkk ak ñàkk am bànneex ñooyam bu jublu gi amee rek njàpp mi toj aw wajalaxaa wala mu am ko min xëy di xas ci lu ak jublu ñaari ba nag mooy ba mu koy laal jublu ci woon bànneex waaye far na ci am bànneex kooku tam dana toj benn rek moo dul toj mooy ba mu koy laal jublu ci woon bànneex te amu ci bànneex boole ca léegi daw la